baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul Dale, ñoo ma yegg ci noonu. dañu màgg. yee sama xarit baa ngi ne yow. Fallou ñoo dañoo màggee. How are you? Fine. Eight eight. No. Eight six. Eight six eight. Eight eight ñoo tolloo. Six eight. Six eight. bàyyi naa bàyyi naa dagg ko fi nag. <laughs> ma ne ko dagg ko fi nag dagg ko fi. lii moom far la xam naa na. nañ dem côté bee nañ dem côté bee. maam fee yéen doo fee. doo fee. gaal gaal na mu ko demee. non xanaa yow. maama ngay dem. maamu ndaw. waaw. ci loo ne amoo rek. yaa ngi ful. ana ma ni ñëw na. waaw. xamante leen bu leen royante maam jaay ci di maa leen bëgg a rey mayu ma leen dara maa ngi lay def nii nu mu tudd. ah fii de ay angale la xaw ma nu koy waxee wala. rek ma dóor ba.

tubaab bi balu jàll balu jàll balu balu yow sa deex yow sa deex sa deex yow faro yow faro ak sa mag ngay ànd ak ñee faro ak sa mag ngay ànd ak ñee

ñun xeex fini c'est pas fini nag. want to want to continue. yes I want to continue. want maa ah dama gagné di ñoom dama bëgg ñu <laughs> jox lii gàcce la revanche la. loolu lu baax nag bu ñu ñuy gagné nag nañ am eh, place bu mat sëkk ñu bañ ñoo ko. am na passante ak lépp yow wala bu nekkee. xoolal kee laa du nangu xëyee kat ya yaboo ngeen nangu kee laa du nangu bu jël avion jël vol. waaw liggéey ah. liggéey liggéey liggéey maam delloo ko delloo ko. delloo ko maam delloo ko maam. ah. ah? bébé. ah nga la de nan la tudd. voley boy voley boy. yàlla mën na lu ne. yàlla mën na lu ne moom. yéen a gis nga dama leen di bëgg a rey. yéen yàlla ko la. gis nga nu may jëlee bal. footballeur laa woon. ah ban poste nga doon football. rakala rakala. gëjëwaat naa leen. tey maam rek mooy gérer. maam rek mooy gérer. maam rek mooy gérer. ñoom ñoom tubaab bi dama dinaa waar kon tubaab bi da leen foofu sax xaw ma lay def foofu par ak man ma ñëw foofu. Good. Good. yow ñi nga àndal dañoo xoolal ñi ma àndal. ñi ma àndal dañoo xiiboon. voilà. yow fii bi nga doon béy jigéen ña nga def fii nii rek dinañu rek. kaay nee na kaay la gën a kaay dóor leen rek. yaa ngi change. yes we change. we change ah. we change. we change. mu sax a baax nee mu def nii. voilà. joxe joxe ñu. joxe. maam Good game. jaayuma jaabare réew ci ndox that, that's in. Yeah. That's, that's in, yeah. That's in. Two, two. Three, two. Three, two. Three, two. Three, two. Yeah. That's it. That's it. No. That's it. On the line. On the line. On the line. That's it. Good. No, no, no, no. Ñomom, ñomom, ñomom, ñomom. 3-2, 3-2. 3-2. Ah, ñom 3. 3-2.

five three. five three. Come on five. cinq trois. cinq trois. oui cinq trois. waaw dañuy génne nag five. waaw dañuy égaliser waay dañuy égaliser. five three ñu dem waaw ñu dem. ay président bi mooy. yaa ngi dugg de. four five. waaw ah, ma ngay fay ma ngay góorgóorlu. foofu ay. yéen a moom wala ñoo moom. ñoo moom de ñoo moom de. da ngaa génne xaar ñoo xaar xaar. da ngaa génne bu da ngaa génne. jaaboo foofu ay. foofu ay. xam nga gën a bee gën a sàng la. ñun ñoo ñàkk. yow xam nga 5. waaw war a gagné. 5 5. 18 5 5. 5 5. Paul Paul Paul non non non non non